asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi dellu siwaat di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant fas yéene comme nu ma koy defee dimanche bu jot vingt heures heure de Dakar vingt heures GMT ñëw ci chronique bi di la chronique de Niokhobaye nga xam ne bëgg nañu di ko amal dimanche bu nekk comme ni ma ko waxee ci njëlbeenu émission bi dañ koy alterner diggante am invité ak def li nga xam ne moom mooy euh, taxaw seetlu tey jii mbokk yi xarit yi am di jàmm yi dama bëggoon ñëw ci ñaari poñ mu gàtt rek du gudd incha allah ñaari poñ yoo xam ne ni dama jàpp ni bu ci nekk am na solo kon bu ci nekk war nañ cee mën a waxtaan bu ci njëkk bu fekkee ne ñun sunu bopp dañoo dëkk ci bu nit defee naka sudul noonu ñu yëkkati suñu baat ba mu dégg ko kon dafay jaadu tamit bu nit ñi di jéem ñu encourager leen ci loolu nga xam ne ñu ngi koy jéem te mu dëppoog sunu bëgg-bëgg loolu moo tax ma bëgg a commencer émission bi ci vraiment di remercier di encourager le maire Barthélémy Diaz meeru Sicap moo Sacré-Cœur ci réalisation yi nga xam ne mi ngi koy def benn bii ngeen gis ni sama ginnaaw bokk na ci yenn yi nga xam ne ni sénégalais yi soxla nañu ko jeunes yi soxla nañu ko population sénégalaise yi soxla nañu ko mooy lan mooy lu ci mel ni ay espace vert lu ci mel ni ay aire de jeu lu ci mel ni ay bibliothèque kon lii taxawaayu meer la maire moo war xam population lu ñu bëgg surtout ci sunu dëkkuwaayu Sénégal yi nga xam ne dafay daal di xat surtout ah sunu climat yi nga xam ne day daal di tàng koñ war nañ di mën na respirer espace vert dafa bokk ci nit dund ni nit du yëfu tubaab yëfu nit la nit moo soxla ci dëkkuwaayam mu ami garab ami gàncax nit ci dëkkuwaayam moo soxla mu am ay jardin nit ñi bu ñu nekkee seen biir ba mu yàgg génn dem féexlu fa nit ci dëkkuwaayam moo soxla foo xam ne xale yi dañ génn ci kër gi dem nekk fa nekk seen balançoire ak yooyu yooyu yëpp rôle lu maire la jeunes yi tamit pour ñu bañ def naka su noonu dañ leen war a wutal ay aire de jeu moo xam terrain football la moo xam basket la moo xam ànd handball la moo xam volley la ba ci ay piscine sax war nañ koo def ci koñ kon ma jàpp ni image bii ngeen gis nii sama ginnaaw ah ba ma ko publier sama page Facebook ba tey de gis naa ni ñu ci bëri rafetul nañu ko di ñaax nag yeneen meer yi ne leen du toppandoo waaye gis lu baax roy ko dara new ci lii moo tax ñu fal leen maire maanaam seen dëkkuwaay yi ñeen fexe ba mu neex mu féex mu yaatu kon mbokk yi ci foofu tey laa doore samay émission di ko gërëm moom le maire Barthélémy Dias di ko féliciter tey di ko encourager ne ko nii rek la buñ la dégg mukk ci coowalu luubalum xaalis buñ la dégg mukk ci coowalu luubalum terrain yi ngay xëccoo maanaam dafa légitime dafa légitime kon bu fekkee ni li ngay maanaam génn di kaas yaa ngi ciy boole di liggéey waxuma la population bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sacré Cœur euh, Liberté ak Sicap waaye yeneen population yi sax danañ la nawloo bëgg la jël exemple pour ñoom seeni maire ñu def ni yow kon ngàcce ngalaama monsieur le maire Barthélémy Dias ah buñ jógee ci loolu mbokk yi dañuy ñëw ci li nga xam ne nag moom moo ah lëmbe suñu réew mi xaaral ma teg image bi ngeen daal koy gis lii boole ko gisee mooy lan a ah, le littoral fii ci corniche bi la gis ngeen barrière yi nga xame ni nit ki def na ko fi ci kaw corniche bi ci kaw plage bi pour tabax cool yi nag bari na ñii ngi wax jëmale côté bële ñee ngi wax jëmale côté bële wante dafa am lu am ba des li am ba des mooy coowlum suuf mi bu buñ ci jógulee regle ko dana indi lu musiba coolum suuf bii buñ ci jógulee waxtaan ci sunu biir waxtaan tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñooy a ah, autorité sénégalaise yi coow dana am de te coow waruñu moo tax ma bëggoon képp koo xam ne sénégalais nga boo toogee ne a ah, man de lii sama yoon nekku ci <coughs> bés dina ñëw nga bëgg tabax mu tëla dama ko doon wax sama benn xarit ndeysaan boo ko xam ne ah man de politique sama yoon nekku ci ay bés mu am soxla dem foo xamee ni ñaña fa teg politique rek moo tax ñu teg leen fa aajo mujj faju kon bu ñu toogee naan damay bañ di politique am na loo xam ne du yëfu politique maanaam lépp lu ñëpp bokk ñëpp ko war a xeexandoo maa ngi ci Facebook bi ndeysaan ku ci mel ni soxna Ndaat Touré ngeen xamoon ko bu baax mu nekkoon TFM nekkoon mannequin doon animé jël vidéo dem ca Lac di filmer di conscientiser gars yi mu wax loolu am solo nag nee na moom politiquewul tey politiquewul suba jéemu la ànd ak kenn jéemu la yàqal kenn wante lii mu gis ñuy def ci littoral bi lii mu gis ñuy def ci lagrose Rose naqari na ko metti na ko en tant que citoyen dafay jug dox ñaxtu ci dafay jug sensibiliser ci ça doit être le rôle de tout un Sénégalais actuellement Sénégalais bu ne war ngaa jóg te xam ni mbirum suuf bu ñu ko bàyyee mu dem mu naa taal réew mi la preuve moom président de la république ci boppam moom président Macky moo wax mi ne li muy jot ci compléne li ci ëpp li ci ëpp ci wàllu suuf la te muy muy dëgg tamit xam nga lu tax waru ñoo mën a nekk ci réew moo xam ne ay sénégalais mën nañu bu la neexee état du Sénégal ñu ne moo leen di daggal suuf jox leen waaw lan moo war a mën a tax mu am ay sénégalais yoo xam ne état du Sénégal moo leen di daggal suuf may leen am ñoo xam ne ni même bu ñu amee dix millions it di wër suuf duñu ko am wala boog dañ leen yóbbu àll boo xam ne jox leen cent cinquante mètres carrés boo xam ne. bàyyi leen nag assainissement bi bàyyi leen nag lépp et en ce même moment ñuy jël fi nga xam ne foofu la dëkkuwaay gën a neexee jox ko leen ay nit ci ay la ay prix yu dérisoire dafa am ku ne ma nit ku nekk ak wërsëgam la ñooñu xëy na seen wërsëg la ma ne ko déedéet du seen wërsëg de njuut ñaaj ak njublam moo mun a tax ñenn ñi ñu leen di jox ay mètre carré di jox ak hectare ñeneen ñi di sénégalais comme ñoom ils n'ont pas c'est pas parce que ils n'ont pas la même chance non ils n'ont pas la même opportunité pour avoir benn assiette de terre bu ñu tabax benn pour avoir benn lopin de terre bu ñu tabax benn mais ne serait-ce que ñaari népp dëkk de moo tax ce combat là doit être le combat de tout un ce n'est plus une question de régime bii moo def ak régime bee moo def régime bii moo wax ak régime bee moo wax tollatuñu foofu mbir mi léegi dafa war a nekk bépp sénégalais xamal ni suuf moo taal Casamance suuf moo taal bëri na ay réew yu bëri tey ci biir Afrique coowul suuf moo leen taal suuf dañ ko war a moytu lan moo tax dëkku européen yi ñoom ak accidentaux yi ñu ñu ñu stable ci mooy dañoo yemale citoyen yi yëpp ci wàllu suuf ñëpp lañ ci yemale bu fekkee ni dañoo dem ba ni dañuy joxe par exemple le littoral sénégalais ne dañu koy dagg def ko ay dëkkuwaay li gën a yenu maanaam mooy ñu def communiqué tey jii bu ñu defoon communiqué ni dañuy dagg cinq cent parcelles sur le littoral ci corniche bi ñu ngi koy joxee mètre carré bu nekk trois mille francs waaye kon nga gis dossiers yi dem dina dem ba mat cinq cent mille dossiers wala un million de dossiers ndax boobaa ku ci nekk di nga déposé wante kan moo mës yëg fu ñu ne ña ngay joxee suuf ca littoral ba ña ngay joxee suuf ca filaawo ca géejawaay déedéet dañuy def lu ñuy def ci suuf jël seeni nit jox leen ba pare nit wër di ko naan la ah wërsëgam na du wërsëgam du wërsëgam wërsëg mooy nga boole Sénégalais yëpp ñu daal yem nga def sa appel ne damay dagg tel côté ku bëgg ñëwal dafa dëndoose yi par exemple région yi bëri noo la ñuy def Tambacounda par exemple bu amee benn côté boo xam ne xam gis nañ ni léegi euh, euh, euh, quartier bu bees war naa am dañuy def communiqué ne lotissement dana am ca gox bële ku bëgg déposer le dossier ku bëgg déposer le dossier noonu en principe la war a demee bu ñu ne par exemple ndakaaru njaay am na gox boo xam ne dañ koy ubbi quartier bu bees ku bëgg joxe dossier mais du temps du parti socialiste avec la SICAP et la SNHLM mais noonu la doon demee moo tax jamono jooju amul woon cette spéculation foncière mi ñi daal ñu am seen kër ndax bu ñu waree tabax danañ nekkat ah ñan ngay tabax Sacré Cœur fa ngay dem pour déposer xam nga ko lañ ngay laaj ñëpp lañ koy laajandoo wala. waaye tey dañ naan ah Malick Youm de jox nañ ko deux mille cinq cent mètres carrés ca ca ca tefes gi lu ëpp Youm am Amar Diouf bañ ko jox deux mille cinq cent mètres carrés bàyyi Amar Diouf lu tax loolu ndax ba ñuy jox Malick Youm deux mille cinq cent mètres carrés Amar Diouf yëg na ko yëgu ma ko yëgu ma ko même bu ak lu mu nekk lébu lébu lébu lébu lébu bu ko jegee tefes gi man it lu ma dëkk Tamba Tamba Tamba Tamba bëgg naa dëkk jege tefes gi ngelaw li tamit ëpp ma même su ma feeñulee loolooy dëgg loolooy dëgg la Sidi dëkk Kolda Kolda Kolda Kolda moom it bëgg na ci bu ñu joxee ci tefes gi mu mu am ci d'autant plus que y a une loi depuis mille neuf cent soixante-quatre qui dit que le domaine maritime kenn waru cee dëkk kenn waru cee tabax loo xam na luy yàgg la lépp lu ñu fay def dañ fay loo xam ne dafay démontable parce que waruñu koo jox kenn mu mun def ko moomeel loi la loi la moo tax man dama ni le prochain régime buy ñëw ah dina am liggéey ah. dina am liggéey parce que nag man de balaa may voté ci kenn danaa la dégg nga jël maanaam engagement bu leer nañ par rapport a le littoral danaa la dégg nga ju engagement bu leer nañ par rapport au foncier il faut que mu am réforme mais aussi il faut que d'abord mu am audit il faut que mu am audit du foncier il faut que mu am audit de ñi nga xam ne ñoom ñooy ces travailleurs là yi nekk maanaam soit domaine wala wala impôt wala cadastre ñoom nga xam ne ñoom ñooy ànd ak c'est des des des politiciens véreux ah di suñu suuf si ba mu nar a jëral euh, euh, réew mi musiba duñu ko nangu duñu ko nangu li nit ñi wax nag man ci laa ànd régime bu bees bi ñëw lépp loo xam ne dëkkuwaay la ci maanaam littoral bi dañ koo war a toj lépp loo xam ne ay nit dañoo forcé woon dem jël ko ñu récupéré ko lu ci mel la ceinture de sécurité bu ah, bu nekkoon CICES dañ koo war a jëlaat ceinture de sécurité bu nekkoon Stade Le Portudal Senghor dañ koo war a récupéré képp koo xam ne dem nga ca filaawo géejawaay ya mu leen ne lii c'est pour arrêter euh, maanaam lavage de la mer ñen ñëw dagg ko dëkk fa dañ ko war a jëlaat récupéré waat cest à il faut une bonne fois pour ce pays là mu mun a nekk ñu lancer une leçon une leçon sévère pour képp koo xam ne ëllëg ak si biir tu seras tenté de faire la même chose lii laa yaakaar man nañu jàpp ni xeex bi gis ngeen ko nii sama ginnaaw am na ñu jug jiit waaye buñ fi nekk naa ñu ngi seen ginnaaw déedéet nañu ànd ak ñoom mbagg ak mbagg tànk ak tànk bu ne war ngaa jàpp ni c'est pas question de littoral rek ah ay ay ay codice bi c'est le foncier en général moo am problème le foncier moo am problème que ça soit Dakar que ça soit à à Thiès que ça soit à Mbour que mu nekk Tambacounda que mu nekk Casamance que mu nekk dans le Fouta le foncier ci boppam au Sénégal la ñu war a toog waxtaanee ko régler ko une bonne fois pour tout te mënuñu ko waxtaanee nag di def li ñu daan def. maanaam ñëw ne waa léegi faisons table rase du passé déedéet faisons le bilan du passé auditons la passé c'est maanaam nañu jël les responsabilité ñu situé leen nañu war a nangu ñu nangu ko nañu war a sanctionné ñu sanctionné leen nga xam ne boobaa nag gars yi dañ xam ne fu mu doon li mbir mi changé na léegi amatul su ba xasee ba def benn affaire ah bu keneen ñëwee ñu bàyyi noonu mu jàll déedéet il faut lancer un message fort ñëpp xam ni suuf si ñun ñëpp ñoo ko bokk bu fekkee ni dañuy jël ne danañuy jox enseignant yi am nañ ci droit na jaar ci yoon na jaar ci yoon ñu daggal leen bu fekkee ne dañuy jox a ah, ah, ah, mareyeur yi am nañ ci droit nañu constitué wu ñu jox leen bu fekkee dañuy jox magistrat yi am nañ ci droit dafa am yoon boo xam ne foofu la war a jaar ñu ne ah waa asek naakat joxoon nañ leen benn cité waa Sipres jox nañ leen benn cité waa pos ñoom Ibrahima Sarr Kanté nuyu naa ko Korma Diallo jox nañ leen benn cité xam nga wo mbirum dëkkuwaay ak mbirum suuf bu ñu ko bàyyi woon ak HLM ak SICAP xëy na tey lii bu ñu ci fekk waaye depuis bañ ci dugalee ñi nga xam ne ñoom ñooy privé yi te ñu ci bari ci ñoom dërëm yoruñu ko ñu ci bëri ci ñoom dërëm yoruñu ko ñu ne léegi nañ leen jox suuf ah ñoom ñu ñëw dafa ay dëkkuwaay jaay ko gars yi ñu ne leen ah ñi ñi ñooy lan les investisseurs privés bëri na ci ñoom ñoo xam ne moo tax am na ci ñoom ñoo xam ne bu leen àq waa bitim réew dalee am na ci ñoo xam ne ña nga ca kaso naan ñooy tabax kër yi bu leen àq waa bitim réew dalee moodu moodu yéeg faatu faatu yi nga xam ne lu ne la ñuy deg nga ñëw États-Unis par exemple ñoo def frais de dossier xam nga rek ñun moodu ñun faatu ku ñëw waxu kër ndax moom la ñuy njëkk nattee Sénégal moom la ñuy njëkk nattee dem na bitim réew de def na fa cinq def na fa dix moom daa amul kër tant que ba yéegee duñu xam ndax ah, euh, am nga wala amoo réussir nga wala réussiroo boo doon yónnee chaque mai fin du mois cinquante mille francs cent mille francs ñu koy dundee ñu balaa seen seen xel dal ñu tabax ko ñu ne ah ci de tekki na pression boobu nag nekk ci kaw moodu moodu yeeg faatu faatu yi moo tax ñooñu ñu leen di tuddee xamu nu ñeen di tuddee te ñu leen di jox ay terrain yu bari ñu ñëw ne dañuy tabax yee jaay bu ñu ñëwee am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw ba fii jël ay dossiers yu bari soo ko dem commencé tabax imaginer nit ñëw ne frais de dossier cent dem New York am fa mille yu déposé dem Washington cinq cent déposé dem Cincinnati cinq cent déposé nga dem Atlanta cinq cent déposé nga dem Memphis cinq cent déposé rapidement nga am trois mille yoo xam ne def nañu frais de dossier ku nekk jox la cent dollars trois mille ku nekk jox la cent dollars kooku ñaata la dollar la kooku ñaata la ci dollar trois mille presque trois cent mille dollars trois cent mille dollars ñaata la ci franc CFA am na ñu ko fi def ba tey ba sànq ñooñu defoon frais dossier gis ñu dara <coughs> waaye bu doon temps wu ak HLM lépp doon jaar fi mu doon jaar kon du ñu am bi problème tey spéculation bi du mel ni mu mel tey Sénégal kon nag mbéju kanam mbaja koy fajal boppam mbokki Sénégal moo xam yéen a ngi bitim réew moo xam yéen a ngi euh, ci biir surtout yéen ñooñu nekk ci biir man de sax ma gisee vidéo euh, soxna soosu ñu naan ko soxna Ndaat ture ma naw ko lool nee na moom përitagul faralul kenn waaye mërum suuf bi mbirum littoral bi yëfam la nañ ko def suñu yëf parce que nag xam nga am na yoo xam ne Afrique ak Sénégal rek la am ngay doomu sénégalais yow Ibrahima Sarr Kanta ñu jox la cinq mille mètres nga dem jaay deux mille cinq cent yi man amaat ma soxla cent cinquante mètres carrés mënu ma ko am ñu ne dañoo yem loolu injustice la loolu moo tudd injustice loolu ko xeexul bu ne dootoo xeex injustice ko xeexul bu ne dootoo xeex injustice kon mbir mi dootul faral régime bi ak ku faralul régime bi mbir mu xool luy dëgg la nga wax ko sénégalais yi dañoo war a yem ci wàllu suuf si dañ cee war a yem kon war ñoo jox ay nit ñoo xame ni bañ leen di jox kenn yëgul bañ leen di jox kenn yëgul te boo ci wax ñu ne la jiwam a may waaw lan moo war a tax sax jiw li ñëpp moom nga jël ko may ko ñenn pour lan lu tax léegi ñooñu ne ñoom tekki nañu avancé nañu ban mérite la ñu am ci boobu tekki yow li ñu bokk ñun ñëpp ñu ñëw jox la ko yow kese nga dem jaay ko après ñoo nga a tekk nga sama kaw tekki woo da ngaa ñàkk jom waaye mbéjum kanam ni ma koy waxee rek mbéj koy fajal boppam coow li dootul ah, ñan dëkk ci tefes gi ak ñi fa bëggul dëkk déedéet ay ata ni nii ay ata ngi nii <coughs> lépp fépp léegi xëccoo la wàllu suuf balaa moo jur musiba nag ñu ciy dóoranteek rayante nañ ci jóg wut ci saafara saafara bi nag mooy nañu gee jéem a gisante nañu jëm a waxtaan ci suñu biir nañu jéem a diisoo suñu biir <coughs> jéggalu lii daal moo doon tey seen chronique de Niokhobaye di leen jox rendez-vous dimanche prochain incha allah même heure jërë ngeen jëf ci moo nekkoon seen xarit seen doomu day amaat fii ci